attention il faut que les gens fassent attention Idriss Seck bu nekkee candidat ñu ni Ousmane Sonko du nekk candidat. waaw parce que Idriss Seck fu mu toll nii moom kenn toppeewu ko dara. Ah, amul dara lu gàkkal ah, lu ah, gàkkal ay mbiram xam nga ba la ñu laa topp dañ la àtte. waaw buñ laa teew duñ la topp. moom non-lieu la amoon. ah non-lieu. waaw ca dañ ko doon topp atteinte à la sûreté de l'État. ah non-lieu ba leer mais waaw. li ko doon toppee ça fait changer kees yi nag. dama ne Idriss Seck taxaw na Ziguinchor. Sénégalais yi déglu leen. Ousmane Sonko quand même bu ko nit ñi fonto taxaw na Ziguinchor ne man je suis né pauvre mais je suis riche ba may judd yoruma dara waaye léegi am na xaalis bu dul jeex. parce que liggéeykat la nag. déglu rek. yow da nga international. jàkkaarloo naag Ibrahima Mamadou Ibra Kane. Mhm. grand jury. Mhm. ne ko je me suis enrichi sur la base des fonds politiques que le président Abdoulaye Wade mettait gracieusement à ma disposition. Mm -hmm. am na xaalis bu dul jeex mag Ablaye Wade dama ko may mi ngi ko jëlee ci fonds politique yi fonds politique yéen ñi may waxal mooy loo xam ne dañ koy woteel assemblée nationale. bu mhm. ne jox ko président ñu ne lu ko neex def ñu ne bu ko neex jàll ko. ba fi Ablaye Abdou Diouf ñoom di jóge c'était autour d'un milliard Ablaye Wade ñëw muy huit milliards milliard bu ne junniy million ñu mhm. jox la ci juróom-ñett fukk ngay saax saxee loolu def la milliards yooyu nee na ci la ko ab Ablaye Wade enrichir mais les l'esprit milliardaire du lool te yemuñu ca huit milliards ya moom moo ko wax bañ ko jàppee war ko traduire devant la haute cour de justice commission d'instruction de la haute cour interroge ko mu ni leen ci biir fonds politique yooyu géré naa ci ay dizaines et des dizaines de milliards du ma fentuma ko président bi ne ko mais mënul ne fond politique matul loolu mu ne ko bu ma saan jógee wadd bu ma saan jógee voyage aide budgétaire yeeg nangam nangam yi ñu koy yox pour ndimbal day ñëw ñu dugal ko ca fonds politique yi amoon nañu compte société générale amoon nañu compte BICIS am nañu compte France donc de l'argent destiné au trésor public Ablaye Wade fab ko dugal ko ca fonds politique yi ca fonds politique yooyu la ne ca la ko Wade enrichir mais yenn saa yi est-ce que nekkul président si boppam moom la moom mooy dem ñu may ko xaalis si yenn saa yi. parce que daan nañ dégg yu mel noonu. dégg ni Xadafi daan na may. ay président xaalis ak aide budgétaire la wax président daan nañ aide budgétaire la wax aide budgétaire dama ne. Mhm. président buñ koy may am fu mu koy jaarale. bu mais nan bàyyi loola nan dem ci protocole de Rebeuss ku ko ñemee weddi léegi jamono. Idriss Seck fu mu nekk candidat ñu ni Ousmane Sonko du Sénégal yi waruñoo nangu loolu. mais Khalifa Sall mi ñu waaj déglul protocole de Rebeuss. Hmm. Samuel Sarr taxaw fii ne ko sàcc nga. tu es un grand voleur sàcc nga 74 milliards yi ab lay Wade ñëpp a ko dégg 74 milliards Ablaye Wade déglu li ma la wax le 25 février 2007. Hmm. ñu réélire ko 1er mars mu taxaw ci télévision. lu mu foofu waxul amul sàcc na sama xaalis Ablaye Wade da ko wax 41 milliards dépôt yóbbu am na fu mu ko yóbbu ci États-Unis yóbbu na nangam béréb sàngam yóbbu na pays baa sax bëgg na faa dugal ñu lànk le protocole de Revers ça porte sur des dizaines et des dizaines de milliards. te defe noonu bu ñëwee mais ku ñu condamné wul pour des faits waaye est-ce que est-ce que est-ce danaa tontu loolu. waaw dafa noonu. xaalis ba c'est un lieu sûr. Hmm. boobu lay waat danaa ko génne ana xaalis ba nee nga ku ñu condamné wut mais bala ñu laa condamné xanaa ñu jugé la kenn da ko jugé waaw donc Karim Wade mii ak euh, Idriss Seck mii ah ba muy def deux mille dix neuf déclaration de patrimoine patrimoine foncier rek les gens estiment que c'était quatre milliards cent compter les nombreux comptes comptes bancaires Mame Mbaye Niang taxaw na ci kanam Maymuna Fay Ndiir génne fukki ak Aïssatou Diop Fall waaw ak ay Diop Fall à maintes waaw kooku ak ak koo xam ne kii kàkkatar la tey bu ko neexee lu ko bu teyee mu xonq bu teyee ñuul bu teyee loolu ñu gëmm ci moom mu nekk candidat Ousmane Sonko moom du nekk candidat waaye nit ñi nañ seetaat seen xel il faut que les gens mais am mais Khalifa Sall tamit ñu ngi wax réhabilitation waaw jàpp nañ sax prochainement euh, loi bi nga xamante ni la loi électorale dinañ ko modifier ba sax laa la constitution yooyu noonu ça devrait être favorable à une participation à l'élection présidentielle de Karim Wade et Khalifa Sall. c'est quelqu'un pour pour lequel j'ai beaucoup de respect. il sait mais nag Sénégal dañoo toll foo xam ne fii. bu wax bu wax jotee dañuy wax. mais Khalifa Sall bu nekkee candidat Ousmane Sonko war naa nekk candidat même bu defee la ñu ko jéggalee il doit deux milliards à un milliard neuf cent millions à l'État. un milliard huit cent. un milliard huit cent c'est beaucoup d'argent hein pour un pays comme le Sénégal et puis nan nan la ñëwee moi j'ai beaucoup de respect pour lui mais bon. ah nee na pratique bu yàgg la nag. pratique bu yàgg la. Pape Diop nee na noonu la daan def. waaw fa Mamadou euh, Diop aussi Mamadou Diop nee na noonu la daan def waaye def ba fu mu tegu def ba ci yoon la. man man day def bokkuma ja nu mu tuddi bokkuma euh, xaw ma kese bokkuma saa ko gën voilà jeex na donc et puis man je connais quand même un peu du sénégalais j'ai cinq ou six œuvres dont un sur les vingt ans de Abdou Diouf je connais beaucoup de choses moo tax dëgg-dëgg am na ñoo xam ne ñii bu ñu leen bàyyi ñu ne candidat nag Karim Wade Idrissa Seck Khalifa un peu moins ñu ne Ousmane Sonko fee. parce que Ousmane Sonko dafa am condamnation deux ans d'emprisonnement ferme condamnation par contumace ba pare ñu daan ko six mois avec sursis ak deux cent millions de dommages et yoo xam ni war na koo fay maam Mbaye Niang même bu nekkee ne ce n'est pas encore définitif. ah bon jàmmal waaw comme wax nga ko rek. Ah. waaw moom lool lañ ko defoon waaye kii juróom-benn lañ ko tëj ak cent trente huit milliards. c'est extraordinaire nit ñi naan euh, nu mu tuddati blanc comme neige ana sama il faut Sénégalais yi. li ma leen di wax man du lu ma du lu may fent. du loo fent waaw. déglul mhm. malgré son non-lieu. Mhm. Idriss Seck loin très loin d'être blanc. Sud Quotidien et Le Populaire bi huit mais 2009 maa ko bind. la ca nekk na ko nit ñi jàng. contribution la woon. waaw contribution ñu naan blanc ma ni malgré non bi nga doon wax. Mhm. ca ëllëg laa ko bind. malgré son non-lieu Idriss Seck loin très loin d'être blanc. Sud Quotidien mhm. Le Populaire 8 mai euh, bi ma njëkk a bind ci moom idris Seck ange ou démon juillet cinq booba la ko Ousmane Ousmane Ngom mhm. sa xaw la xaw la xaw li ko Ousmane Ngom yàq loola rek procureur war na ko woo alors foofa laa ne Idriss Seck ange ou démon waaye maintenant j'ai la réponse Karim Wade mii ce garçon ne doit pas être le successeur immédiat de son père le quotidien du 30 janvier 2009 ba ñu naan bu Wade demee mën leen kii. Mhm. il ne doit jamais être le le le successeur immédiat de son père te dama ko caawane Karim Wade un prétentieux et un fieffé menteur populaire du 23 mars 2009 man damaa ñeme li may def nañ ko seeti beneen non Karim nu ne sommes pas les que votre père et vous-même croyez le quotidien Sud Quotidien 20 juillet 2010 lu toll ni bind naa ko ci Idriss Seck te li may wax lépp amul lu ca nit mën a dindi. dañ may saaga naan ma damaa bañ diw rek da ngay acharné wu si Idriss Seck. Karim ñu bëri loolu la ñuy wax achar déedéet. ñu bëri naan da déedéet waaye yow tam sunu réew mi nag. ñi hmm. koy jiite kay waruñoo nekk di saax saaxee sunu wàll te te it aussi. ñi ñu war a jiitee ëllëg war na ñoo xam ñan la Macky ngi dem deux mille vingt vingt cinq février deux mille vingt quatre mais ñi ñu jiite danoo war a xam ñan la mhm, mhm. li ñu dund premier avril deux mille ak Ablaye Wade ba ba nu yàgg deux mille vingt quatre li nu dund yàlla bu nu ko dundal dama naan sénégalais yi képp ku laal ci Ablaye Wade wala nga laal ci Macky Sall bu fekkente ni sénégalais yi am nañu càggante ba fal ci kenn muy jigéen muy góor bu yóbbu Sénégal yàlla far ko parce que lii ñuy dund dañuy dund lu ko gën a pourtant ñoom ñu ngi wax ay retrouvailles la la famille libérale mooy li ma wax dama ne Abdoulaye dafa ne danañ fi fukki mhm. ñaar fukki ak ñeent billaahi wallaahi taala man li ma xam ci ñooñu mhm. sénégalais yi bu ñu sàgganee ba kenn ku jóge ci ñoom 2024 ñu fal ko bu yóbbu yàlla raafal Sénégal li nu dund ak Macky lan dundoon ak Abdoulaye Wade danoo dund ak Macky lu ko yées. ndax te bu dee booba it. dañuy dund lu yées li ñu dund ak Macky ak am na ñu jàpp ne fu mu toll nii ñooñu danoo nekk di booloo pour gàllankoor Ousmane Sonko bañ a bokk ndax yow am nga impression boobu. waaw mais dama ni Ousmane Sonko bu présenté woo. Mhm. Karim Wade n'a aucune chance Idrissa n'a aucune chance donc ils ont intérêt à ah. aller ensemble. Euh. ah mais yaa ko ah mais ñoom tamit bu ñu booloowee seen doole. dama ne bu ñu booloo. na lu mu téye si électorat. je leur lance je lance je leur lance un défi. Idrissa Seck na nañu ànd wutub candidat nay kii nay keneen bàyyi Sonko nañ ko def ñemewuñ ko de te ji nga ñii nekk les potentiels candidats. Mhm. ñu ci bare bari duma àgg ci ne bu ñuy.